ونحن على ما قال ربنا ومولانا من الشاهدين اللهم ارحمنا بالقرآن الكريم وانفهنا بالآيات وذكر الحكيم واجعله لنا حجة يوم الدين اللهم انفعنا بما صرفت فيه من الآيات وذكرنا بما ضربت فيه من المصلات وكفر بتلاوته عنا سيئات إنك مجيب الدعوات اللهم تقبل منا ختم القرآن وتجاوز عنا ما كان في تلاوته من شهو أو نسيان أو تعريف أو تهديم أو تقيل أو زيادة أو نقصان أو تحويل على خير ما أنزلته أو تحجيل عند تلاوته أو كذل أو ضيق اللسان أو وقوف بغير وقف أو إدغام بغير مدقم أو إزهار بغير بيان مكتوم على التمام والكمال والمعذب من كل الأذهان وظن فل من قرأوا مدين قوم على الأعضاء والقلب واللسان وأبلنا به الخير والسعادة والبصارة والأمان ولا تهتم لنا بالشر والدلالة والطغيان ونبينا قبل المنايا منا من خفلة والكسلان ومنا من عذاب القبر ومن سؤال منكر ونكير ومن أكل ديدان آمين. وبير جوهنا يوم البحث وترقابنا من النيران ويمن كتابنا ويسر حسابنا وثقل ميزاننا بلا صلاة وثبت أقدامنا على الصراط واسكنا وسط الجنان وظنا جوار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وكمنا بلقائك يا ديان وكمنا بلقائك يا ديان اللهم اجعل القرآن عظيم ربي قلوبنا وجلاء أذاننا وذهاب خون مؤمنا وقائدنا وسائقنا إلى جنة النعيم اللهم اجعل أنسنا في الوهدة ومصاحبنا في الوهدة ومصباحنا في ظلمة ودليلنا في الحيرات ومنقذنا في الفتنة وعلمنا به من الذيق والأهواء وكيد الأعضاء يا رحمن يا رحيم اللهم أدم بسعادة آجالنا وقب الزيادة آمالنا واحرم بالعافية خدونا وآصالنا وجل إلى رحمتك مسيرنا ومآلنا وسجل فيك لا ذنوبنا ومن علينا بسر عيوبنا اللهم اجعل تقواك زادنا وثقة بك ظهرنا واعتقادنا وأمن من الجوع والخوف بلادنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين آمين اللهم بلغ صواب ما قرأناه والنور ما تلوناه لرؤي سيدنا ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام ولرؤي آبائه وأمهاته وأزواجه وذرياته وأصحابه رضوان الله تعالى عليه أجمعين آمين. اللهم بلغ صواب ما قرأناه والنور ما طلعناه هدية واصلة ورحمة متصلة منك إلى روح الحاج بصير جاج مريم جوب آمين اللهم اغفر له وارحمه ولا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم بلغ ثواب ما قرناه والنور ما تلوناه هدية واصلة ورحمة متصلة منك إلى روح الحاج بصير جاج مريم جب وجاء من مرسوا اللهم اغفر لهم وارحمهم ولا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعضهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم بل صاب ما خرناه والنور ما تلوناه هدية واصلة ورحمة متصلة منك إلى روح الهاج بصير جاج مريم جوب وأجاما مرسوا اللهم اغفر لهم وارحمهم ولا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم برحمتك يا أرحم الراحمين ولأرواح آبائنا وأمهاتنا ومصايخنا ولأرواح جميع المسلمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين ويا من أثر الجميل لهيئته ويا صادر الخبيث ويا من لم يعقل لنا بالجريرة ولم يعطي ستريا سطر المعيبة ويا من عظيم عفي أثنى تجاوزي ويا واسع المغفور ففي الخديان ويا باسط اليدين أوصى برحمتي ويا فامع النجوى فتان البليد ويا منتهى الشكوى إلهي وسيدي دعوتك يا كريم صف البريد ويا من عظيما مني مبديا نعمتي إلينا باسترخاء قبل المنير فيا ربي يا سيدي ومولاي خير وسعنا على جميع هذه ورحمته وأسألك ألا تسوي خليقتي سلام على من لا نبوة بعده وسلم علينا مع جميع الخليق صلاة وتسليما على خير من دعا دعوتك يا ستار فاستر معيبت صلاة وتسليما على خير من دعا دعوتك يا ستار صلاة وتسليما على خير من دعا دعوتك يا ستار فاستر ميبتي اللهم انت مرتنا بالدعاء ووعدتنا باجابتك وخدعناك كما مرتنا وجبنا كما وعدتنا يا ذا الجلال والإكرام إنك لا تخلف الميعاد اللهم صل على سيدنا محمد الفضيل ما أغلق والقليل ما سبق الناصر بالحق والآل إلى ذلك المسائل وعلى آله ومقدار العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفريد ما أغلق والقليل ما سبق الناصر بالحق والآل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 ñu jàng fatiha ba ci nastain bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani rahim maliki yawmi ddin iyaka na'budu wa iyaka nastain amin وآله وصحبه جل آمان صلى الله عليه وسلم اللهم صل على روق سيدنا محمد طب القلوب ودوائها صلى الله عليه وسلم وعافية الأبدان وشفائها صلى الله عليه وسلم ونور الأبصار وضيائها صلى الله عليه وسلم وقوت الأرواق وشرابها صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أنشل آبا صلى الله عليه وسلم مديح نبي الله يزكى تعبدي ونبي sallallahu alayhi wa sallam yonent bi taalaw fa indi li nabi muhammadan ينادى خاتم الأولياء إن حب النبي قال لحمي وإزامي ومقدون رياي قد سقاني كأس المحبة ربي من ينادي قال صلي وصف حميد هذا أفوال تفضيل رجاء البرايا يوم مزدحم من كل وقف وصف حميد هذا أفوال يا نمت بالدين وعميد هذا أفعال جبدي رجاء البرايا يوم مذبح من كل وصف وصف حميد هذا أفعال على طفل رجاء البرايا شجاعة أسقى الناس أحسنهم خلقا وخلقا وخير الخزب يا سيدي الحاج مالنا من كل وصف حميد سجاته أهل المدينة سائل الليل فزه أجمل من كل وصف حميد الغالي في خنين غاية الخير عيبين كرامة أناس يتقون مسامعة وقد بدت في خنين غاية الخلق في الأيمان كانوا إذا أمروا يا مسامعة الجنة وأليان الناس قالوا لم يكن أبدا بين الصحابة زامد العنين الخير يننت على النبي وعليهم أجمعين سلام ربنا دائم من عم بصخبه الميله صخبي عمرنا على النبي وعليه لا يدم أجمعين سلام ربنا من عمار سعدي ما مضمر على النبي وعليهم أجمعين سلام ربي عما أبسخت سيد الحي ملنا على النبي وعليهم أجمعين سلام ربنا دائما عما سيد الحي ملنا فاخضرت الأرض نفس من الله عام الفتح وأيماننا فاخضرت الأرض أرض والأشجار قد حملت بفاسد الفتح والرا محمد فاخضرت الارض والاشجار قد قاملت فسمي العام عام الفتح والرا اجمل فاخضرت الارض والاشجار قد عاملت فسمي العام عام الفتح والرفع مصطفى وصليا يا إلهي واجزيا أبدا عنا محمدا المختار في القدم صليا يا إلهي وجبي أنا أبدا أنا محمد أنا مختار في القيل مصطفى وصلي الله وجزيه أبدا مددا لنا محمدنا مختار في محمد بشير وصليا يا إله ووجزيا أبدا مددا لنا محمدنا مختار في الخير بشير كما وهب طالما ترتيب سيرته باب لنا اقتداء يا هادية عجم لله وصليا يا إله عاجيا أبدنا محمدا مختار بالقدم عرفت ليس الباب اليفاني معانيا النبي غدت لسوار المقصرات البرانيا teewlu leen ñu tagg Seydina Muhammad. asalaamaaleykum. teewlu leen yonent day Moussa yaa leen dàq doo ñoom dunu yow xabasaak du suudadin wa faxaarin ay yonenante fi yatimatul asmaaw wa muxayyan كشمس من كمدي مستوى أسرت أنان ليلة الخراب wabada mbaa bëgg ngeen sayiduna muhammad ngir ña jëkkoon sayiduna muhammad moo gën ñu mujj ñi moo leen gën lil wujudi minka karimun min karimin aba wo kurama ya xayral wara yonen bëgg naa la ko sopp yonti yàlla muhammad bëgg naa la ya xayral wara naw naa la man soppu naa la yonent bee wekk naa la wasaqiyaari sumare seydina muhammad إلى سوي تكبر كالبر وسا أنجمه وهو أكمل الورى ينن خلقا وخلقا سهراي والمثل قد لم يرى yenen walan yura fi siyame ahmaduna yonen ahmaduna ahmaduna ahmaduna ahmaduna muhammad fala tiba illa wa huwa tibu muhammadin wajaagi wala itra illaa wa huwa itru muhammadin sayyiduna muhammad waajaangi tatayyabatil wara bi tiibi muhammadin waajaangi qura taybatin taabat bi tiibi muhammadin waajaangi waajaangi waajaangi waajaangi waajaangi sayyiduna muhammad kaana li bil bayi mubtaxiyan inda man li hajatin laana fatawaabu ya ya maliki ken du muhammad liftax waab li yawar suxni wajadtu ma kaana lii bil bay mubtaxiyan ma inda man li yaxdi hajatin laana moom sayyiduna muhammad maliki yawa day xina sinajilan bil bisri ma amadatin kenn du yonte yàlla Muhammadu ataa uxiiman li diini arkaana seyduna muhammad ma nga naan yasiru jógiri tuuba wax mi nii waqi nii asal wara wal tuti um lii sama iskaana supam si dadaan dëgër mu sawaasa yoo ko jógee yoo mastaxam dëggul teranga bu mel ni sa bos baaseen la yow mu sawa asamaan si lee ay yónneen ku mel ni yow jantam bi masta xalaat xëy tàngal alhamdulilahi rabbil alamin alhamdulilah alhamdulilahi ala kulli haal ñu sant yàlla beneen yoon dolli ci li ñu ko santoon ci xew-xew bu màgg bi di 25 mars bi bésub génn àddina alxaaji Bassirou Diagne ñu di ko fàttaliku ci yiw togg ay ñam saraxe jàng alxuraan tudd yàlla ak julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa nag noonu lañ ko mës di doxalee ba daaw yàlla suturaal nu ñu yokk ni ñu yokkee mooy dañoo baas ci mbedd mi Chérif Ibou Seyni laay ñëw ak mboolem ku ñu am fa tabaarakallaa ñëw wuyu sunu ren jii itamit noonu la ñu képp ku ñu am wuyusee waaye yàlla dogal pour des raisons administratives ay autorisation yu ñu waroon a bind ay mbir yu ñu waroon a euh, def au préalable ak fi réew mi ci ak yëngatoog yooyu te xamuñu woon lan moo waral woote bi bi ñu commencé bâche démb ci guddi police nationale ñëw fi tas ko ñun nag ñuy ay citoyen wax dëgg yàlla di ay patriote di ku jox cër suñu ay institution ak suñu cëru réew kon du ñu mën lu dul tënk ci lu yoon dogal ndax li bu defekkee ne yoon dafa wax ne kuy woote ci mbedd da nga warul autorisation te ñun amuñu autorisation bu ñu yoon tegee lim ñu teg dañ ko war a tegoo kon loolu moo waral ñëpp gis ñu yamalewaat ko ci biir kër gi rek comme ni mu daan demee at mu jot ñuy sant ñëpp nag di gërëm ñëpp ci seen teewaay parce que malgré li ñu wax ne annulé nañ ko terewul kër gi gis ngeen ni mu mel mi ngi fees li war ci ku génn àddina <clears throat> def nañ ko togg nañ ay ñam sarax ko jàng nañ alxuraan ñi tagg yonent bi yéen a ngi leen di dégg noonu ndax kër gii moom muy 25 mars ak ñàkk 25 mars loolu moo fi am fi ñëw lekk ba suur naan ba màndi boo bëggee nga dégg ko fi way ku fi ñëw ñu teral loolu moo fi am ñi ngi sant ñëpp di euh, gërëm particulièrement presse bi ñi fi teew ñëpp ndax yéen yàllaa ma yéen fu ma nekk lu ma nekk ngeen nekk ci kon maa ngi leen sant leen gërëm di gërëm ñi tagg yonent bi yëpp di gërëm plus particulièrement wax dëgg yàlla sama mag sama xarit le ministre Seydou Gueye tàgge boo gis am na jàppal ma diw bés bi kenn fekku ma ci kenn 7 millions de francs laa ci dépensé woon malgré annulation bi mais amul mbindeef bu ci def 100 francs ku dul ministre Seydou Gueye waxuma nag xaalis bu mu ci def mais investissement investissement humain bi mu ciy def wax dëgg yàlla moo gën a sedd xol lépp kon ñu ngi koy sant di ko gërëm di ko ñaanal yàlla yokk ay ndamam dëgëral ay ndomba yokk martabaam ak dara jaam maa ngi gërëm presse bi yëpp salaamaaleykum wa rahmatullah waaw day loo xamante ne dafa tàmbalee ci néeg dem ci saal ci ëtt bunti kër ba wàcc daaw ci kaw tali bi kon daaw ñun moo doon suñu première expérience ñu génn ko ci kaw tali bi malgré dix ans yi si biir dix dañ ko doon feete ci biir saal bi ba yàgg ñuy génn ci ëtt bi ba yàgg ñu koy teg ci buntu kër gi ba yàgg ñu wàcc ci kaw tali bi dagg ko loolee nag day nekk loo xam ne bu déwénee incha allah dañ koy waajal bu soobee yàlla da ngaa yéex a ñëw kilifa yu kenn desul jaraaf Youssou Ndoye ak haut conseil des notables lébu teew nañu fi le grand ndey ji réew Tëngéej alaaji Paala Mbeng léegi la fi jóge malgré dëju Paala Samb bi ci loxoom la ne léegi la fi jóge Serigne li Thiaw mu seydi mu sey mu seydi maam Ibrahima Séni mu Seydina Issa mu sunu maam Limaamu fu mu teew teewal na diine jépp kenn desul booleeg nag plateforme yi ma jaaroon pour yëgle ko dama fa jaaraat pour wax ne annulé naa ko donc li nga fi gis lu restreint la mbiru famille la moo tax nga gis nii nga gis ñun fi nu toll bu nu wootee wax dëgg yàlla Medina gis nga ne kenn desu fi ñoom ñëpp kenn ku ci nekk ni ñaa ngi jaabante di ñëw di dem malgré dañ ko annulé waaye munoo kon munoo quantifier kan moo fi teew ak kan moo fi teewul ndax xew mi dañ ko annulé bu fekkoon ne bâche tegu na di nga mën a xam kan moo teew ak kan moo teewul mais comme que dañu annoncé woon ne dañu annulé koo fi gis rek xamal ne dafa ñëw feeñal yéeneem ñi ñëwul tamit amoon nañu yéene ñëw wàccaay bi lenn la mooy génn sa xaalis fay ñun dañuy bokk ay natt di dund dund ndongo daara ngir benn bés bi moom la ñu am mooy sunu màggal mooy sunu gàmm mooy sunu appel damay faral di wax ne ku gën ku tax nga gën ko warul gën du sa morom sab sanga ñun njabootu Alaaji Basiru Jaañ gi sunu sunu sunu doxee ci réew mi ñu di ñu tudd mbaa ñu di ñu dara jaal ngir jëmmi ba Alaaji Basiroo tax kon ku ci gore war nga boo amee sa dërëm mbaa sa ñaar dërëm nga dajale ko ba bés bi ñu ko dencal ne mooy bésam bu dellu see nga war koo mën a màggal ba ñu xam ne def nga li doom di defal baayam ni ma ko waxee woon maa ngi abb wala boog maa ngi royee ci Serigne Fallou Mbacke ci ci baay bu waccee doom mbir mu war koo sàmm Serigne Touba wootewul Touba màggal dafa ne màggalal leen ma ko ci togg ay ñam ak i bernde saraxe waaye Serigne Fallou Mbacke ngir bëgg samp li baayam wacc moo waral mu ne fekk leen ma Touba daal di àbb baat nu boppam ne ku ñëw fekk ma fi ma faj sa ajo man nag aw ma baatin waaye am naa togg yu neex am naa xaalis bu ma joxe moo tax ma woote ne nit ñi ñëw leen ma teral leen waaw.